merci je suis très content je suis ravi d'être avec vous surtout de partager avec yéen seen kii maa leen di ñaanal euh, jàmm di leen ñaanal plein succès par rapport ak seen programme yu bees yi euh, ambition bu bees bi na leen si yàlla jàppale yal na leen si yàlla taxaw. jërëjëf Souleymane Diallo mu nekkoon suñu gan nag euh, ci la bonne heure ci loolu rek ñu taftal ci li gën a fës ci yéenekaay yi ànd ceeg Cheikh Abdoulaye dal leen ak jàmm diggante njiitu réew mi askanu Sénégal bu doon mbàppat mbaa box jàpp leen ni ña nga ca prolongation yi wala sax round gu mujj ab fippu dëgg mbaa jéngu national moom la askanu Sénégal daal di woote yëral l'info moom la xëy daal di fësal fippu pour l'ultime combat contre Macky Sall loolu la ko xëyee daal di fësali mu di ab front bu ñu daal di tëral ab bile front di xam leen ni doyal nañ sëkk ci groupe Macky Sall ak ñi mu àndal li ñuy sàkku rek mooy mu gaaw a la ngay ndax xotti na lépp luy ormay constitution bi leneen bi kàddu yi Sidiki Kaba di xam leen ni buñ moy tuut mën nañu wat processus électoral bi lépp réew mi quotidien dellu siwaat ci front de résistance bi nga xamanteni ni daal nañ ko tëral daal duñu indil natalu njiitu réew mi Macky enquête moom xëy duñu fësal ni njiitu réew mi Macky Sall di daago ca biir pare naan càkkas gin gin càkkas càkkas gin gin rax ci dolli kàddu yi Madiambal ni kii di njiitu réew mi Macky Sall fas di bind conseil constitutionnel ngir rek mu daal di tànn ko utu ci bopp njiitu réew mi laata laata du dem ci élection yi tribune yéene kaay dellu soit ci kaddu dëgg yi Bougane Gueye Dany daal di yëkkati ginnaaw bi front de résistance doon amal janoog taskatu xibaar yi moom Bougane Gueye Dany ci wàllum amnistie bi daal duut baaraam njiitu réew bi lu mu ko yàkkut da ko fàtte te lam ko waxal weñ wa ca takk faatu yàllaaw ay mbokkam suuli ko wëlbatiku nag di dànkaafu woy politiciens yi vingt quatre heures gën ko yaatal dellu soit ci kaddu yi Bougane Gueye Dany di xam ne ni moom kay dafa woote rek ngir a booloo a daal taxaw résistance rek résistance rek mom la Bougane Gueye Dany daal di yor-yor xey du ñu xamal natalu ñetti jambar way fakk tëdd ñetti Fatima la Sonkolees ak amidja mu melni de ku leen di xalamal l'évidence mom nan ñu app bu deug le Macky Sall daal di tegal di Amadou Sénégal di app cadeau emploi sonné de Macky au Sénégalais Sud du Quotidien ci wat ci li nga collectif des universitaire pour la démocratie euh, a ko ci njiitu réew ak li di loi d'amnistie euh, sursa moom xëy duñu fësal euh, junni ak ben solution yi Anta Babacar Ngom daal di teg nag ci table bi ngir daal di mën di immigration clandestine way tam daal di gën a ñi di ndaw yi lenen mu daal di ko xamle jëm ci kàddu yi Sidiki Kaba naan ñu mom dal tracé na ñaari scénario ñaari scénario la tracé fàtte nag ñetteel ba te muy fip mbaa jëngu national bi askan bi daal di yëkëti ak critique moom xëy samp laaj nan badu Amadou Diop mii moo fas yéene nekk juróomeelu président bu Sénégal fas yéene utu Macky Sall ci bopp réew mi Mame Boye moom dafa daal di rek taal jëb bett njiitu réew bi noonu la ko critique yéen kaay daal di xamle Mame Boye Diao brûle Macky gannaaw ba mu doon yëkkati kàddu ca ndajeb front de résistance quotidien, amal ci alxamis gi le quotidien le quotidien wax ci walum yoon ak parquet bi daal lancé nak ay poursuite jëm ci taxawaay greffier ginnaaw bi ñu éditionné seen natango bi la di dem ba Touré leneen mu daal ci dellu si gi Aku, ca Ndar ci ay doomi Les ak libération Ousmane Sonko ak samp ab laaj jëm ci loi ba ak nanguwuñu ko ñu daal di ko dàq ci loi amnistie bi le mandat moom xëy nañu Sénégal mu ngi ci guuta de faw ñu daal ko teel a sowe laata béy di wéy mbuus